tàmbalil ak cawarte ak Nescafé ak cawarte ak Nescafé day end up with mi ngi noonu di leen ziyaaraat beneen yoon bu baax a baax ci àjjuma ji euh, di euh, yee yee salaat rek suñuy euh, ànd suñu kóoluteeg suñu ji leen jox seen wàccuwaay ci suñuy diggante rafetlu nañ bu baax a baax bas bu ne da ngeen di teewlu seen programme suba teelu waaye rawatina nag programme mu D-Media ak seen TV yëpp ndaxte nag mbir mi yéen a ko def télé askan wi kon nag télé bu ñuy seen ci kanam lay doon incha allah rabi ci kaw rek ñu ànd ak yéen bés bu ne mi ngi noonu dañuy koy daal di dalal tous les vendredis xam ngeen ni soxna ñëw ak ñun ci tàggat yaram tey nag daf maa xaw yóbbu saf hôtesse de l'air te yaakaar naa ni hôtesse de l'air Air Sénégal nii la ñu war a def di di seen def seen ay tagal bàyyi tailleur yi def seen grand boubou yu baax mbaa seen robe bu ko defee rek ñu saf ñu Sénégal waaye tamit première dame dafa dem yóbbu ma ba Dubaay ah <laughs> ñëw rek ijab ma tout toq musóor di ma saf milliardaire yooyu mi ngi noonu daal ayca gan gi tamit dañ koy dalal tey ma Mbaye moo ñu ko daal di bâclé bu ko defee rek eh, dinañ gën a waxtaan ci mbirum emploi gune yi Fama Ba tamit pour eh, juma mu Moubarak faw mu dikk moom tamit ànd ceeg ganam ginnaaw loolu nag dañ koy nuyu ah bàkkal ko jib sax na def yaa ngi am jàmm. sant naa bu weer bu yàlla doon lee ma jël. macha allah yaa ngi kuul bu baax a baax. yaa ngi kuul bu baax a baax alhamdulilah. koor gi jàppagu la. non mën man nag xam nga yaay faal bu ñemee woor la macha allah yal na yàlla xeeb doole. macha allah kon mi ngi noonu <laughs> koor gi de gars yi nee nañ ma man damay woor. ah di am nu may mel. yow lu woor pour sellal la di. soo leeree kay kon yàlla jéggal na la say bàkkaar. da ngay leer war a leer wala jaamu yàlla gi war a yokk ah. parce que weeru promotion la xam nga looloo tax nag leer gi. Mhm. war a mën a feeñ ci yow ku la gis rek ni tubaab fakkaar la macha allah sama rakk ji maa ngi leen ziar gan gi dalal jàmm ci suba teel di leen ziar yéen tamit ci aljuma ji di leen ñaanal jàmm. macha allah première dame Luisa Diandi borom esthétique ak carrières et profil ndaw yi daf ko ñor moom itam ba tax ne carrières et profil bés bu ne rek daf ci ñëw euh, won leen lan mooy corps de métier ñëw wala li ci nekk ba tax ne euh, ñoom dinañ xam en choisissant ils auront une bonne filière à à choisir mais aussi derrière l'esthétique qui va avec parce que tout va en beauté n'est-ce pas première dame. absolument <laughs> et en plus qu'il faut à la place qu'il faut. <laughs> c'est exactement ça maa ngi lay nuyu Asma di la wax nag tey neexoo deret. déedéet ah tey neexoo deret de. Ah, nii ngay wooree. sama mag ji nag. Eh. moom mu def sax dem ba di waaj def sax. day baax. waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax eh, di nuyu ñi nga xamante ne ñoo ñu seetaan ak gan gi nga xamante ne moom la eh, dalal fii yow nii ngay wooree noonu la. Mhm. Mhm. ni may wooree noonu la ah? nii la noonu laa koy defee <laughs> waaye yàgg. Fama Ba seen xeetu la lan la ah yéen moom nit ñi yéen mi ngi noonu gan gi dañ koy nuyu dalal ko mu daal di féetewoo góor ci plateau bi laata Fama Ba di installé ndaxte nag ba ba bayee ni ay buur lañ. da mm-hmm. nga di bàyyi ñu wu defaru ba mu baax. mi ngi noonu bu Sagnan mu nekk commissaire euh, commissaire euh, national à la commission des éclaireurs et éclaireuses du du Sénégal n'est-ce pas. maa ngi noonu nañu wàcce micro tuuti. Mm-hmm. wax ci mën a jóg wax kay bismillah. voilà maa nuyu di leen sant. Mhm. man maa ngi tudd Nachib Sagna commissaire national à la communication des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal. commissaire confédéral maanaam confédération des scouts moo xam ne ne éclaireurs ak scouts du Sénégal ñoo ko bokk. mais naka tamit commissaire euh, disons euh, dans la sous-région nekk commissaire à la communication euh, des scouts de l'Afrique de l'Ouest. Mhm. voilà. macha allah maa di nuyu di leen sant bon journaliste laa tamit comme yéen mais parce que Walfadjri laa nekk. macha allah mais euh, borom kër gi maa koy nuyu parce que on a cheminé ensemble nekk nañu woon Walfadjri dans les années 90. très bien Bougane voilà koy nuyu sant voilà. merci beaucoup Fama Ba dañ koy nuyu ziar ko dalal ko sëb lu baax na. soxna si ziar yow it li nga grand bu moo fi tege nice na trop. mu nekk madame Ngom. lu baax rek lu gën rek la may sàjj. jigéen ñi loolu la ñu xam sëy la ñu a gis nga mi ngi waa rafet na ñun kontaan a hmm. ziar naa la ziar aussi Louisa première dame sama suñu lingeer bi soxna faal ñu ngi lay maa ngi lay ziar vous êtes toute pimpante et toute jolie hein ziar aussi nos amis nuyu képp ku ñuy seetaan ci àjjuma bi rek tout à l'heure Asma ñu daal fii dalal vieux nabi incha allah pour suñu rubrique juma mubarak mi ngi noonu Fama Ba bu ñu dalalante ba noppi dañuy wëyal tàmbale euh, bakk bi jib na faw ñu jëli suñu àpp éphéméride ba su fàttaliku euh, dafay yokk nit jom wala sax mu won ko fi mu toll bu ko defee rek mu gën a góorgóorlu nous sommes aujourd'hui le 23 avril 2021 et nous retournerons au 23 avril 1996 le Séné la sénégalaise des eaux SDE assure la production production et la distribution d'eau dans les principales villes du Sénégal. La SDE, devenue aujourd'hui Sen'Eau, est née de la réforme du secteur de l'hydraulique urbaine du 7 avril 1995. ñu gis ne ni SDE bi mu fi nekkee dëggal naam dañu doon ñaxtu daal di wax ni am na rek euh, loo xamante ni mënoon nañ ko defaraat. Mhm. defaraat boobu liñ ci defar xëy na tey askanum Sénégal xaaruñu ci woon lii nii ndaxte boo fëggee buntu kër boobu. boo fëgg soxna Fall. Mhm. Euh, Luisa Diandi euh, Fama Ba euh, nit ñi dañuy ñaxtu facture élevée waaye qualité ndox mi des na. Mhm. ba noppi coupure ku ndox mi mi ngi bëgg rey nit ñi. Mhm. Hmm? boo xoolee date création bi ba tey buñ ko defee ak léegi yaakaar naa yàgg na même si bu dee SEN'EAU so SDE soppeeku na nekk seen SEN'EAU manquement d'eau yi ñu ngi koy jooy foog naa aussi population bi nu ñu gënee yokk mënuñu jox ñëpp. Mm-hmm. donc fu ñu demee bay yokk facture yi yaakaar naa rek euh, ci sama compréhension soxna. Mm-hmm. ñu daal di ciy def li nga xamante ne dañuy yokk li ñuy distribuer li ñuy jox yokk forage Kër Momar Sarr rek foog naa doyalutul kese nañu utaat yeneen point yoo xamante ne yu mel ne noonu pour gën a mën a distribuer. mi ngi noonu c'est très important n'est-ce pas Soxna Fall tey jii bu ñu xoolee euh, diwaan yu mel ni ay benn tali il n'y a pas très longtemps c'est au courant de la semaine et de la semaine dernière ñoo ngi doon ñaxtu génn def seen euh, takkaay bu rouge naan euh, ndox mi dañu koy dagg tout le temps ils nous trouvent des excuses comme quoi lii ci montagne la nekk lii sangam lii nangam je pense que quand on veut rénover on se prépare déjà justement à régler les problématiques de base et que diwaan yooyu la dañoo yàgg joytu mbirum ndox et ça perdure. Mm -hmm. le euh, du jafe-jafe yoo ko population wala leneen parce que da ngay prévoir di am li nga xamante ni si mooy euh, lu jëm ci domaine statistique bi fii nga toll euh, fii nga jëm atum bii di ñëw lii la war a nekk. Mhm. da ngay prévoir boo prévoir mbir yi du mën a dox. lan moo doxul loolee lañ war a xool mais du du dajaloo di wax rek te duñu jëf. parce que jëf gi duñu xaar te nit ñi tamit bu ñu yokk duñu xaar jafe-jafe yi ci àdduna bi day gën a chaque jour day am lu bees mhm. kon yaakaar naa bu amee changement bu ñuy indiwaat dañoo war a indi loo xam ni xëy na moo gën li fi nekkoon. Mhm. bien vrai que nii wax naa ko fii ay ay yoon yoon bu fekkee ne li ñu proposé ngir ñu fay ko moo ëpp te qualité bi baax man d'accord naa que ñu bañ a wax sa waxu xaalis. wala waxu ah. fi euh, waxu euh, montant mais na baax parce que gis ci seen bopp mais problème yu benn tali yi ça des années. des années ça ah perdure ak mm-hmm. beneen koñ ak beneen koñ mm-hmm. chaque fois nga dégg dans les éditions nga dégg koñ yi di di ñaxtu mm-hmm, kon cela signifie que ni boobaa ak léegi xëy na ñu ngi defi jéego mais population bi euh, méttit bi mi ngi gën a wéy tam ci ñoom mi ngi noonu ñoom peut-être ils ont de bonnes euh, perspectives mais dans la dans dans l'acte dafay des bu baax a baax et on espère justement que pour poursuivre l'actualité avec euh, cette cette entente de la jeunesse de la création de l'emploi qui lie la jeunesse au, au régime au pouvoir. J'espère qu'il n'y aura pas de haute trahison, il n'y aura pas une, un semblant de vouloir bien faire et que derrière, il, qu'il n'y ait vraiment pas d'acte réellement posé pour euh, bien faire. 23 avril, moom la ñuy descendi 1999, la nomination de euh, mu nekkoon au poste du général de la multinationale Air Afrique Air Afrique ndeysaan ah, ñun ñi sax xëy na ab gune la ñu woon waaye tamit dundoon nañ ko bokkoon na ci jamono yu neexoon ci Afrique ah Air Afrique euh, il succédait au Mauricien Sir Harry euh, euh, Tirvangadom démissionnaire pour des raisons de santé ci boobule jamono aussi ingénieur en construction civile diplômé de l'INSA de Lyon le nouveau directeur général a fait l'essentiel de sa carrière à Air Afrique il où il est entré en maanaam bi mu génnee l'université ba tey Euh, ca Air Afrique la jàngee woon mu daal di wutu euh, kii nga xamante ni l'île île de Maurice la dëkkoon mhm. Euh, pour des raisons de santé mu daal di démissionner. Mhm. Air Afrique la belle époque. Ah, franchement ah oui, ah oui. c'était la belle époque en 1999 franchement. Mhm. yaa la belle époque boo xam ni moo tax Air Afrique parce que c'était du gaspillage. Ouais. Les gens faisaient voyager comme mm-hmm. les, gens qui travaillaient faisaient, voyager les familles dans, l'avion sans mm-hmm. les, présidents d'Afrique yoo xam ne ñu ko doon gérer ñoom parce que mm-hmm. euh, ku créer a Afrique mais lu mu ko daaneel finalement euh, qu'est-ce qu'elle est devenue euh, la société dafa dafa nekk en faillite daanu les gens sont partis parce que multinationale la woon parce que mais il y tous les pays d'Afrique di oui c'est j'en profite pour saluer mon oncle hein, Tahir Ndiaye qui est maintenant directeur général de Sky Mali il était à Air Sénégal ñu xeex ko fii nii ci oh. Air Sénégal bii nii tey ba mu dem Mali Mali oh. jox ko tërëm bi mu ma yelloon cher mhm. maa ngi ko ci nuyu muy directeur bi bu baax a ndax moom itam il a été à Air Afrique suñu fierté la suñu mhm. oncle la boo am te ne parcours am tey macha allah ñu gis ko mu daal di fay liggéey donc maa ko ci nuyu bu baax a baax et l'image aussi de Manou Dimago dem si yàlla nga xam te ne ci Covid bi la décédé moom moo <laughs> defoon image Afrique bi noonu donc euh, mu nekk loo xamante ne marqué na esprit bu baax a baax il y a tellement de beaux souvenirs parce que moi je me mm. rappelais mon grand-père il travaillait et c'était des cadeaux des voyages c'était tout ça et bien vrai que dañoo nekkoon ay tout tànk mais lui ça c'était la belle époque parce que il avait tellement dama doon yàkkamti lekk-lekk biiru avion mm-hmm. parce qu'on était petite en 99 quand même c'était mm-hmm. des bébés <laughs> mais euh, voilà c'était la belle époque da nga doon gis nit nga xool kanamam xar kanamam yorul lu bëri waaye dafay nekk mm-hmm. dafay naat te loolu il faut nous ramener à ça parce que règle dong woon donc nag faaw ñu delluwaat nit ñi ci ab <laughs> règle lii moo nekkoon suñu ab éphéméride. surtout li fi nga daanele. dañ delluwaat nit ñi ci ab règle. gis fii la belle vie ñëpp ko bëgg. te te war na mën a nekk. Mhm. ci yu bëri bëri. mais avec cette vie tellement chère rek. Euh, ah mais déstabiliser des fois. parce que fii yëf yi war a dem bu demul foofu kay nii la yoo am ñoo ah. xamante ne dañuy dëkk ci ñàkk di ci dund di ci. Euh, ah. c'est dommage sache pas faire la part des choses li nga xamante ne moom la liggéey bi laaj ñu jox ko li nga xam parce que tamit doo nekk au pouvoir di appauvrir sa sa population ñuy dund ci li nga xamante ne mooy frustration looloo ko indi ah mhm. Mhm. indi fu mu nekk nii foo laal di métti i problème yi ñu fiy wax problème mu ndox c'est des zones yoo xamante depuis longtemps depuis qu'on est né ñu ngi dégg des les mêmes problèmes et mhm. ce sont des des nécessités de base yoo xam ne mënul ñàkk ndax bu ñëpp tolloo woon sax ñu ngi di seen cër mais waxuñu leen ñu rendre ñëpp riche mais nañu nekk ci stabilité boo xam ne di mën a dund dund gu tranquille ak a xalaat xalaat yeneen ñu mën a am développement et c'est tellement important et c'est tellement c'est là la base de la construction elle-même c'est j'ai apprécié hier quand j'ai vu le président checker avec euh, un jeune kooku yor ay peru kawas nga gis garde du corps bi na fir daw mm-hmm. li pas Assane di wax mi ngi bëgg doon dëgg dëgg la tu es dans ton rôle mais un peu d'humanisme et d'humanité dafa am loo xamante ni nit la da ngay nitee da ngay bàyyi ba mu et moi ça m'est arrivé ci cadre boobule euh, je en 2019 bi ñu amaloon foofu noonu le la foire internationale de Dakar euh, dama fa dem mais dama ne président le président il est il est très à l'écoute day taxaw mhm. di la mais le temps may jege si rek gis garde du corps bi ñëw taxaw mhm. pourquoi on est des humains on va pas vouloir du mal au président de la République et c'est même pas nekkul ci cosaanum sénégalais de vouloir du mal mais dans mhm. un échange boo xamante ni président dafa woo ndaw ñi pour ñu ñëw wuy si ko ñoom ko te ñoom tamit ñu sàkk woon ko je pense que il devrait s'y attendre à ce que des jeunes et puis on est des gens civilisés jeunes bi wax na ko nee na xam naa ni waa ji dafa jóg bërët rek nga gis gardi ko brr mbete machine looy daw <laughs> xam nga après le jeune il a dit non je sais que mbir mi nu mu demee tey mënumaa gis président mais jottali leen ma ko président gis acte boobu noonu et là il a montré qu'il était le père de la nation et le serviteur de la nation sénégalaise dafa woo ne ko bàyyi leen ko mu ñëw ah, ah j'ai adoré mais mais mais moom tamit président xam nga ci rôle am la nekk mais mm-hmm. garde du corps bi tamit parfois les comprendre bu ñu brutaliser kenn mais nañ ko def avec euh, peut-être instance wala avec euh, compréhension mais moom tam ci rôle am la nekk non non on est d'accord avec son rôle mais avec beaucoup du d'humanité souplesse parce que boo ne bërëb jug rek dafay mel ni euh, c'est ce qui maintenant c'est dans la façon de faire contraire qu'ils ont toujours eu à faire soxna mhm. fait ils ont de de bons pieds mais ni ñu koy poser mooy gaañ nit ñi ba nga xam ne après on ne ressent plus que c'est de bons pieds c'est son rôle mais il peut être humain c'est-à-dire il peut euh, dox ndànk ñëw taxaw ci président ba kii bi di ñëw ça pouvait être civilisé et raciné élégant il mhm. faut que on apprenne à être élégant mhm. n'est-ce pas c'est tout a le toucher de le voir ça passe ailleurs dans d'autres pays ah mais bon fii boo jegee même les journalistes ah des fois dañuy bugg a def seen liggéey mais mm-hmm. ils sont brutalisés devant mais foofu ñu bëri duñu fa dem ah. particulièrement du ma fa reportage alaa ñu forcément ñu forcé ba ma dem vraiment laa parce que moi j'ai vu ku ñu fa dóor au journaliste bu ñu fa dóor mm-hmm. ah, alors que mm-hmm. kooku il avait un badge il avait tout et il il faisait partie des organisateurs mais ils l'ont bastonné à mort Ah, elle a raison de rappeler que c'est son rôle, ah. certes, ah. mais que dans les rôles maintenant, faisons avec raffinement. avant ah, de parler de son rôle j'ai bien dit ni. Mhm. dafa am li nga wax sànq war na ànd ak souplesse. Mhm. compréhension mën a am. Mhm. ñu xam ni dañoo ñëw pour àggale un message. parce que xëy na bu fekkoon ne relation bi war a am ci diggante président de la république ak sa population am na ci am na benn ritax ritax bi néew ma ñàkk na ko xëy na du àgg foofu. mais au Sénégal on n'a pas cette habitude n'empêche que mi ngi ci rôle am sur le terrain pour sport. équipe nationale bu dee jouer t'as pas envie d'aller au stade pour couvrir mmh. tu tous les problèmes du monde mmh. pour nga jël interview ça c'est un problème dañ lay dàq di la dóor di la bëmax comme kuy loo xamante c'est un mal propre moo tax ma dëggal loolu même ñoom bu ñu nekkee seen rôle dama ne nañ koy ànd ak loo xam ne lii nii la demee kii dafa ñëw pour civilisé c'est ça civilisé aywa ak ñoo civilisé nag ñun sénégalais bu ñu yàqal suñu cosaan mm-hmm. Mhm. mais mais mais nag rôle des garde corps et autres mhm. sécurité d'habitude ñu koy yoree ci ay bërëb man euh, je sais pas ndax dañ leen di jox ay instructions wala ñoom ñooy demee des fois ak seen fugg bopp. des fois c'est zèle quoi des fois ils sont zélés. Ah parce que ah oui parce que des fois tu vois des actes yoo xamante ne ay kilifa yu ñu ruso la. yu waaw yu ñu ruso yu te pourquoi parce que soi-disant ràññewuñ leen wala mm-hmm. dañuy comme li nga wax rek que des fois dañuy monter dans leur zèle ou autre. carrière du mm-hmm. profil je pense ah. qu'il est temps de s'intéresser à ce profil de carrière. je pense qu'il y a une base importante boo xamante ne war nañ ko définir. Mm-hmm. Euh, buñ ne bu dee dañ lay jàngal li nga xamante ne mooy euh, en tant que sécurité. kii mais il faut communication oui exactement il faut il faut dans l'approche il faut te comme li nga wax rek nag peut-être dañuy zélé et que ah. li dans leur formation cest à certaine souplesse boo xamante ne loolu ça relève de l'humanité ah mais non nag de la personne propre. Ah. li def mooy dañu la koy dénk il faut que nga indil ñoo fi garde du corps. en tant que <laughs> carrière ko defee la question et sur la formation et sur le pourquoi du comment de certains comportements dañ koy ndar képpee fii maman Ndak nag daf ma yeb ne ma nag Ali euh, MD danga may may nataalu ndaw soos noonu nga xamante bu bu orange bi la sol takk or bu rafet bi nga xamante ni euh, <laughs> mooy xaritu jigéen di or alors mi ngi tudd euh, moom di tudd Mbeyta Maguette ah mi ngi noonu Diouf Thiaka mi ngi noonu waa kay ak a jongoma sama yaay jéema yónni Biram Doumbé sama rakk sama xarit sama wéetal sama compagne de tous les jours ce sont les mots de maman Dak nee na kat yaay meilleuram kon nag nañ la ñaanal rek fan wu gudd ah, ci barke weeru koor gi nga xamante ni sa bés dafa tombé ak moom dañ lay ñaanal rek ah, yàlla gën a yaatal yal na yàlla gën a yombal yàlla na yàlla yokk sutura gi ndaxte nag anit bu amee sutura yàlla mën ko bokk ak ñëpp ah, wax fa dëgg yàlla dañ koy ñànnal rek wóyam ak ngelawam neex mm, du noonu mm, mm.

sama chocolat or bi rek ma ci neex. tey asmaa munoo tëj te du ma souhaité sama papa <laughs> mu ñuy e seetaan. joyeux anniversaire. maa sa nun gi macha allah. moom nga xamante ne ñoo bokk daanaka milieu bi ñuy évoluer mm-hmm. euh, ñu di la gërëm di la sant. di la wax ni euh, li nga def ci ñun euh, ci yow la nekk. Mm-hmm. Ah, tey ji buñ ne tey baax nañu wala am nañu yar. c'est parce mm-hmm. que yaa ñu ko jox. donc du coup euh, tout le monde ah tout le monde tey ji day ñaan am papa joo xamante ne royukaay la. Mm-hmm. donc ma lay ñaan tey ji année bi. c'est bu baax ma la ma la koy souhaiter <laughs> une belle longévité. ki nga dund ba fekkee tey ji yéen bi nga xamante ne moom la jàppoon bi am si yow. Najib. c'est la fille de Yacinthe du quotidien. ah, ah non ça y est mais yow yow suñu doom la yow. ah oui ton papa on a on a travaillé ensemble avant man chez Abass. mooy message léegi di ma ko wax. ah mais ça y est pas mais c'était c'était c'était mais on a un gars boo xam ne. Mm-hmm. donc franchement di dafa am vertu. dëgg la ah je vous le dis ah. wallaahi. quelqu'un qui est vertueux. Mm-hmm. koo xam ne liggéey lay ñëw def. dëgg la et c' est un le meilleur journaliste du Sénégal. waaw loolu moom le dira la wax. l'un bu bindee amul correction. jiw moo ba pare ba pare bëgg ah. ah. dire que am amuñu journaliste yi ñu amuñu xaalis. Ah. ça je peux le dire. Euh, mais mm-hmm. dans l'humilité mm-hmm. dans la dignité je pense que euh, loolu il faut le dire. Mm-hmm. je pense que Bougane na ko wax. on avait trop souffert. c' est ça difficile. Mm-hmm. dañ doon xeex parce que quotidien euh, Walf on euh, était euh, privé la woon en fait. Uh-huh, c'est woon mais malgré tout. on était là pour travailler. moi qui là j'ai fait plus de 27 ans là-bas. l'amour liggéey liggéey liggéey mi ngi son frère son papa vraiment kooku. macha je pense que kooku c' est. dañ ko naroon dañ ko naroon non dañ parmi les journalistes aussi Sénégal. mooy ah, ah. war nañ dem xool lu muy liggéey. Mhm. waaw roykaay la quoi voilà c' est le mot qu'il faut. joyeux anniversaire waaw waaw. Ah, joyeux anniversaire papa euh, Louisa wax nga ko bu ñu xoolee ci yow rek ne nekk euh, une eh, bonne éducation. am ngeen ko mm-hmm. dund ba fekkee ah, ñu ngi ñaanal gudd fa nag wér macha allah li ñuy dégg saa su nekk rek rafet na kon yàlla dund ba mel noonu non yow moom yaa tey bu ñu gënee xam sax kii la soxna mi tamit bokk na ci moom xàmmeewuñu doom moom xàmmeewul doom bu mu jur ak bu mu ko juraat li kiy wax sànq suñu grand bi Najib vertu la am muy nit boo xam ne ko yaatu am ouverture am écoute sens d'écoute mhm. jàmm ak salaam rek lañ koy ñaan yow papa dundal rek birthday happy birthday pour ma part ndaw ñi nañu dem gëstu mag yooyu nga xamante ni ce sont les références et les ténors du de ce corps de métier mhm. ñooy tax nga am orientation ñu bu baax ñooy tax euh, pënd mi bu wuree doo bokk ci ñi gàddu gàcce ji ànd ak moom dafa am solo liggéey dafa am yoon te ganu euh, suba mooy dalal ganu ngoon kat te mag yi dañu ci jiitu ba pare yéwén lool ku leen jege rek la ñuy xaar mhm. daal di transmettre seen connaissance Luisa Diandji ku ko gis ak tëlëm rek c'est pas pour rien qu'on la madame, ni d'ailleurs madame la procureure. C'est parce que justement on lui a infusé ces valeurs-là. merci beaucoup papa on partage cette éducation parce que tey Luisa dina ma yok yokk keneen ak keneen. Mhm. te ci kër ga la ko jëlee. Mhm. kon nag yer bu baaxee rek euh, boo yeree sa doom ba mu baax moom mën a tàmbali di yóbbaale sa yer euh, ci fépp fu muy mënta dem ci addina alors Yacine Seck borom bloc. la matinale. Mm. moom dafa am ndeysaan ku dëkk Sébikotane di teewlu suba teel bés bu ne moo moom moom entrer en contact ak moom doon wax ni rek mi ngi rafet lu émission bi di ñu ziar bés bu ne daf ñuy seetaan maa ngi koy ziar bu baax a baax di ko seetaan moom fële ci diwaanu Sébikotane léegi nag faaw itam ah, jokkalante bi incha allah Yacine Seck dina ko dox ndaxte jottali nañu ko incha allah rabi dinañ ci dox maa ngi lay ziar di la bu baax a baax sama caamin googu lee nga xamante ni xamaguma la te bëgg laa xam mi ngi noonu dañ koy tàmbalee dugg ci suñu ay chronique laata loolu ramassis d'actualité on écoute le président de la République ou Vous voulez ou pas ah oui. Vous voulez ou pas ah, oui, oui. ah non mais dites-moi quoi Sors la phrase Oui oui oui oui bu baax man suñu njiit de a le président de la République <laughs> Aïcha pare rek may ñu ko moi j'ai séduite <laughs> Ce rendez-vous avec la jeunesse de notre pays s'inscrit il est important de le dire il s'inscrit opportunément dans la mise en œuvre du décret 172 du 27 janvier 2021 portant création et fixant les règles de fonctionnement du Conseil national pour l'inclusion et l'insertion des jeunes au Sénégal. En somme, il s'agit ensemble de réfléchir, de dialoguer et d'interroger nos pratiques afin de convenir de nouvelles dynamiques pour faire plus et mieux. Ne partons pas de zéro, parce que les préoccupations des jeunes pour l'emploi et la création d'activités génératrices de revenus ont toujours été au cœur des priorités que j'ai assignées aux structures et mécanismes de soutien à l'encadrement et au financement des jeunes et des femmes notamment. mi ngi doon président Macky Sall pour ma part il m'a séduite hier euh, par son approche par sa simplicité, euh, par, sa, euh, sa vérité, sa souplesse. Il a compris, il a écouté, il a accepté. Et comme Ninkei Warene, et il a montré aussi l'importance du respect de l'État, mm -hmm. l'importance de, de l'état d'esprit du citoyen, de la citoyenneté et surtout du patriotisme. C'est très important. Et c'est ce qu'on attend justement de King Ahmad Teni, moment du président Macky Sall. Mm -hmm. Ah, sa, sa langari bourguet de lam toro. Mm-hmm. tegaloo ma gàcce benn yoon. kuréel ko. nga kuréel mënu ko. dëgg la ñu ni la ni nga defee baaxul wala ànduma ci ak yow nga xool xam ne askan wi yow nga reconnaître que ñoo la fi teg reconnaître que ni ñu ngi souffrir reconnaître que ni yu bari doxul xëy na lu ko doxalul à notre niveau du ñu am yenn information yi xëy na yaa ngi santaane xëy na suivi bi am problème au Sénégal amu ci nga toogaat xoolaat waaye li ma ciy wax rek mooy comme que toog na woote na waxtaan nañu nañu dem en action nag. Mhm. mu toog rek di wax nag. Mm. te jëfewoo ko amul benn njëriñ parce qu'on perd beaucoup de temps tam di toog di wax c'était l'essentiel mu toog wax. am na ci solo du ñu ni amul solo mais comme wax nañ ba noppi te définir na tâche yi tamit nañ def suivi bi ñi ko jox tamit nañu ko dimbali te yàlla rek tax. Mhm. ngir mbir mi mën a dox. justement mbirum ab liggéey ndaw ñi ñu xam ne nii am na ñoo xamante ni ci chômeurs yi dañoo bokk am seen lijaasa seen diplôme chômé am ñoo xamante ni dañoo amoon liggéey mbas mi tax ñu doon ay chômeurs am ñoo xamante ni ci seen biir c'est du secteur informel et qu'il faut former pour justement faire de des corps de métier reconnus par par l'État et valable léegi nag euh, euh, comme soxna Fane ni mu ko waxee dafa nekk loo xamante ni war nañ ko mën a nag président wax na. ñu daw ci dem ci lu ci sa xalaat noo gisee. Euh, rencontre voilà man d'abord ci seen euh, thème yi conseil national de l'emploi et de l'insertion. ñooñu si dugal réinsertion. Mhm. Euh, parce que insertion c'est vrai mais man pour man mën nañu gën a dem rek comme sànq yoo xam ne yoo xam ne ni am nañ seen métier. am ñu fu ñuy disons. <laughs> ils ont déjà le métier am na lu ñuy ah, lu ñuy def zone tout mais mu mënuñu am liggéey bu baax. tout ça mhm. tu l'as dit tantôt am na yoo xam ne ils ont perdu leurs emplois tout ça donc affaire bi loolu mën a wax mooy on remercie les jeunes moi je parle au nom des jeunes moi je suis pas jeune mais j'ai des jeunes que j'adulte que j'encadre on mhm. ay éclairé lañu donc on encadre beaucoup de jeunes donc jeunes yi ñu donc lu président def ni xale yi ñoo ko laaj c'est pas c'est pas venu ex c'est les jeunes qui l'ont demandé et je me que ñun depuis deux mois mhm. les éclairés ont demandé que président nam mhm. déglu ndaw yi dans une lettre adressée au euh, à la nation adressée aux jeunes. Mm. suñ commissaire général bi Moussa Mbaye def na lettre boo xam ne nii bu émeute amoon. mu ne dañ déglu ndaw yi au lieu déglu leen xam lu ñu bëgg. ñu topp leen. Mm-hmm. au lieu ñu def ay de manière très nekk fi di mer non lañ leen déglu. je pense que président loolu def et vraiment nous le félicitons pour ça. mais seulement ñu ngi wax nag ñun. dans tout ce qu'ils ont fait c'est bien. Mm-hmm. mais nañu maytu ñu politiser ko Sénégal on prend des engagements mais à la longue euh, fiasco la nekk parce que politique moo si lalu. Mhm. te loolu la ñuy wax nag lépp lu ñu def c'est bien nañ déglu nañu boo ndaw yi même déglu bii ça été trop rapide parce que boo xoole 30 minutes pour parler de problème lu ñu wax ni yëpp les gens le connaissent déjà. moi je pense que on pouvait encore de manière très approfondie. Mm. toog ak ndaw yi dans les régions dans les départements dans les communes. Mm. def ay documents yu gën a fiable documents yu gën a baax. Mhm. génne problème ndaw yi ñun je pense que il faut qu'on aille vers ça. mais je pense que c'est la perspective ça c'était la première. Ouais. rencontre directement avec mm -hmm. le mhm. président Macky Sall. Mm -hmm. et que lii lu mat a bàyyi xel la c'est-à-dire man j'aime bien am na ku ma naan léegi sa discours changé na j'aime bien ne waaw góor ku dem ba ci digg bi changé dëppwaat nangul ña nekk ci ginnaaw li ñu bëgg c'est important. Mhm. parce que ça c'est preuve de grandeur. c'est preuve de reconnaissance de soi. c'est preuve de critique de soi et ça c'est un développement personnel. Euh, c'est un pas vers le développement propre et personnel c'est important mais non lii mhm. nii yaakaar naa ni ab bu njëkk la mhm. ndaw ñi c'est très normal ñu laaj ko parce que président moom mën na am xalaat mhm. dafa mel ni borom kër rek il peut avoir des des pensées peut-être qui ne sont pas adéquates ou adaptées à ki nga xamante ni moom moo di askan bi li muy xaar kon mooy suivi moo ci moo ci des ci ñi nga xamante ne jiital nañ leen ci mooy ñi yore euh, ay fonds JIPAC ay yeneen ak yeneen structures yi exactement il faut aussi également savoir là pour critiquer wala pour mhm. faire plaire on mm. est là pour discuter de ce qui se passe dans le pays ay mm. citoyens sénégalais lañ fi lañ mm. dëkk mettit bi dañ koy yëg neex neex su amee dañ koy yëg mm-hmm. nekkuñu fi pour xalamal wala nekkuñu fi pour euh, di di critiquer nit rek wala lu mu def baaxul le président de la république mu neex ñu mu naqari ñu Macky Sall il est le chef suprême de la nation ah, moom la ñu am pour wax bu baaxee dañ naan baax na bu fekkee ne am na safaan ba dañ naan safaan ba waaye tamit di ci wax ni nañ defee nii ak nii parce que xalaat du doy. te mhm. benn xel rek doyul. Mhm. pour juste tontu ki la naan la discours bi dafa changé. voilà mhm. pour changer discours. <laughs> Euh, soxna. pas important il faut dire Asma qu'il y a de très belles initiatives. Mm-hmm. Mais comme on dit, à chaque fois, il manque le suivi. Mm-hmm. Et c'est lieu de c'est là où il est il convient de rappeler que ne tey jii euh, ñi nga xamante ne ñoom la ñu teg ci si seen si seen si seen liggéeykat mm-hmm. ah. ñoom ñoo war a liggéey du président ñoom ñoo ah. war a liggéey président léegi nag keroog li nga wax nii Louisa Diandji fii laa toog ma wax ci loolu kilifa gu mag bokk ci ministère yi woo ma naan ma noo yéen da ngeen bëgg a wax ni président dafa wéet waaw nous, on n'est pas des clochards, ce sont ces mots. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup affecté. Euh, nous ne sommes pas des clochards, ce sont ces propos. On n'est pas là pour être juste comme ça. Manélène, il faut pas être réfractaire à, à, aux remarques. Ce ne sont même pas des critiques, c'est des constats. Constat nag nit bu constaté da ngay ñëw constat mooy lan wax naa lii lii laa gis da nga yow nga gis lii lii moo am ñu daal di conclure ni lii moo fi ne du dëgg kon nag thèse ak antithèse la ngeen ñu woon ñu ko dëgg yàlla. voilà dañuy fàttali. waaw mais il faut ñu dem ba une politique de jeunesse. il faut que moom ay yoo xam ne dañ koy définir yoo xam ne politique de jeunesse boo fay nekk. wax loo xam ne ni ay affaires yu cohérentes yoo xam ne ni ndaw yi dañ koy continuer mais pas de manière euh, ay. Euh, trois mois waaw mais nañ def loo xam ne day continuer day yàgg de manière structurelle aussi. Mhm. ndaw yi nag il faut jox leen parole. Mhm. lu nekk di c'est bon mais il faut ñu gën boo xoolee baax ndaw yi sont par bu ñu xoolee un peu dans ay conseil la jeunesse ay ay moom disons ay euh, conseil économique et social assemblée nationale mm-hmm. bu ñu xoolee ndaw yi deux pour cent la ñu deux pour cent mag yi ñoo xalaat seen place mm-hmm. c'est à rectifier également c'est à tout ça on a fait pour les dames mm-hmm. jox jigéen euh, parité il faut ñu dem aussi ñu dem si ndaw yi moom parité un peu dans lépp ñuy def moom ay mag moom ay ndaw parce que ndaw yi je pense que on peut pas comparer leur place bon boo gisee ma ne que y' a un petit problème c' que lépp lu ñu def ne ñun ñu bëri des documents yu bëri. ay gouverneurs ñoo ko def ak ñu mag ñoom. mais il faut ñu ñoom may la ñoom ñoom spécialement. toog xalaat seen bopp. indi ay documents yoo xam ne ñu mën xalaat. jokkoo gouvernement bi et pour loolu il faut ñu jàppale la aussi si démarche bi. il faut il faut surtout que cette rencontre perdure c'est-à-dire après ku ma ko wax déeb ne ma au moins tous les mois président de la république bii après 2024 ki fii ñëw war na mën a di saafonteeg jeunes yi chaque mois. askan bi selon secteur bu ne mu recevoir leen démb gis nañu lu ñu rafetlu ndaxte euh, dañ daan gis ni ab sëriñu daara euh, Haj Mansour daanoon na ko fi mhm. ñaxtu euh, bu génnee am lijaasam mënul liggéey ci ab entreprise te pourtant moom cursus bi ki jàng l'école moom la jàng ay démb moom président de la mhm. république mhm. recevoir na leen ki def arabe ki def arabe c'est différent de daara ki def arabe ki def arabe te am bac arabe ni mënul dugg ci kii bi mënul dugg ci ki nga hier ay intervention yu am solo man laa ci jot tombe tombé xoolal ki que ne dama dem jàngi ji Europe te xam nga ñëw indi sama ay diplôme te ba tey mënuma dugg ci biir société yi te foofu ñu ciy xaw a jàngat mooy xam nga des fois dañ ne dañuy favoriser ñi nga mm-hmm. xamante ne extérieur li ñuy jàngee daal di ñëw donc pour dire que ne que euh, yëpp la laal domaine yëpp xale yi ñi nga xamante ne exactement démb les les pharmaciens uh-huh. avant le mérite mais pas li nga xamante ne mooy copinage yi fi am ak vraiment vraiment ça en mérite mérite bi nga xamante ne nit ki moom la am dem jàngi am diplôme et non bralon léegi nag xoolal kii Tamsir Bosco di ma tooñ naan yéen ak seen tagal xan dañ leen compal kenn mayuñu dara ñun dañu di góor ak garmi piir lekkuñu lekkuñu xiifuñu saraxuñu macha allah bugga na ngay fay. Ah, bu rëgg bugga nañu moo ñu compal. waaw moo ñu compal waaw ñu ñu teg fi di niinal suñu ceeb bés bu ne. du dëgg mais je veux dire par là que quand euh, c'est il faut pas être contre la personne. et partir avec de l'émotion tantôt waxoon naa ko fii nekk sénégalais problème yi ñuy am yëpp mooy on vote. par sensation. sensation. Mm -hmm. On n'a pas un vote par conviction. conviction. on vote par sensationnel on aime par sensation quand on voit que kenn a ngi néew di doole kenn ñu faral ki ñuy néew di doole c'est bien c'est humain mais il faut que ce soit orienté et structuré il faut que ñun ci suñu jëmu bopp ñu orienté suñu bopp structuré suñu bopp démb Haj Mansour fi euh, bàyyi benn message bu mhm. frappant pour la jeunesse il ne faut pas et tantôt doonoon naa ko fi wax de kat ne leen waruñoo xaar nguur gi donte nguur moom la lépp war mhm. mais sa nguur bu ñëwee fekk yow nga pare da ngay neex a dimbali kat du dëgg te ndimbal na ciy fekk loxoy mm-hmm. borom nañu pare ci suñu bopp ba nga xam ne ku fi ñëw duñu yeb duñu ñu voilà mënul lépp sax nag mënul lépp ba pare asma tamit Euh, tey jii nguur bi bu defoon de telle sorte que la ngay wuti xam nga fa nga koy fekki mhm. te lu doon problème ci yow tey dina yomb mhm. pare dina yomb lool nag bu tegoon institution yi nga xamante ne nit ñi nga xamante ne ñoo fa nekk te kayit booy dem di uti ak lépp loo bëgg a xam ne fii nga koy te boo amul kayit yoon doo ko am tey ji pare dina yomb dafa bari xam ne daf nekk te mu mën a ñàkk lenteur o da nga tudd kayit moo tax sama xel dem ci lenteur ci administration yi mhm. pour nga am benn kayit c'est tout un problème tu passes une journée yooyu c'est dépassé yooyu c'est dépassé politique bien vrai que mënta ñàkk ci dëkk ci la oh. bokk mais ñuy xool le plus méritant mm-hmm. fexe ba comme ni nga wax euh, orienter les jeunes structurer affaires yi parce que wàññi boo gis si benn lay commencé bu nu ko mm-hmm. wax rek daat fay yam nunu ko jëfee waaw parce que ku ne xam na jafe-jafe yi ndaw yi di même nga déglu leen ak ñàkk leen a dégloo ci yam xam nga li ñuy dund xam nga mm-hmm. jafe-jafe yi ñuy dund xam nga métti bi nga xamante ni sa askan moom lay dund li ci des mm-hmm. rek mooy avec les moyens du bord mm-hmm. nga commencé di def ndànk man ma di ko commencé yëg yow nga ko yëg keneen di ko yëg ba fàllaaw ba mbir mi am coppite mi ngi noonu am na ku doon wax tey si suba mu ne nañuy wax aussi ci wàllum université gi gune yi je pense que par rapport à leur approche ils veulent copier un peu ci pôle emploi Pôle emploi nag def wax naa ko fi dem te dinaa ko bamtuwaat ba mu leer ci nopp sénégalais yi mooy koy dañu lay liggéeyloo trois semaines jàng loolu une semaine léegi nag da ngay génn ak compétence mhm. de la théorie apprise ak salaire ak ab tuuti expérience professionnelle ak poche poche bu xaw dun tuuti mhm. il faut qu'il voilà mhm. c'est ça joindre l'utile à l'agréable da ngay encourager nit ki mu jàng bu génne dana am métier bu demee ci entreprise bu ñu ko laajee six mois d'expérience day fekk mu am ko un an d'expérience day fekk mu am bu dee trois ans la ba masters quatre ans cinq ans day fekk ni nga am expérience professionnelle bu ni toll bu ko defee quand tu sors avec diplômé da ngay am gëdd bi ñu la war a jox ci sa wàccuwaayu liggéey du dëgg mm-hmm. kon nag il faut qu'ils emmènent la jeunesse vers ça pour le secteur informel bëri na ñoo xamante ni xëy na seen jàng sorut war nañu leen former waat boole leen ak ay professeurs euh, d'enfara mooy en développement personnel ay coach de vie c'est important pour que ñu xam luy seen culture waaye luy tamit modernité bi ñuy embrasser bu ko defee ñoom ñu structurer orienter seen bopp euh, moom mi ngi doon wax ne ni nañu wax ci mbirum université bi nekk fële ca Bambey Alioune Diop de Bambey Euh, bu ko defee UCAD kese nekkul problème université bu am problème université de Bombay tamit am na problème bu baax a baax. actuellement ils sont en grève illimitée. ci yàlla pour parce que master yi problème master yi ak problème bourse yi. donc euh, loolu tamit c'est un problème qui existe. booy yi ils sont là booy yu bëri dañuy ñibbi seen kër. Mhm. Euh, ils sont en parce que tout simplement. lu ñu wax moo di que master yi la ñu bëggoon disons bëgg na master 2 bi exemple. Mhm. on avait des choix à faire boo léegi dañu ko bëgg a supprimer. et pare bu ñu ko supprimé ñu bëri ñoo ñuy perte seen bourse ndaw yi nag ils ont été en grève fu mu nekk nii depuis une semaine eh, dañu teg seen classe yi ñu ngi si euh, kër yi je pense que euh, problème université yi c'est un euh, problème très complexe parce que éducation au Sénégal fu ñu remonter sur d'abord c'est la politique éducative d'abord ban finalité lañ jox éducation bi parce que mhm. démb ça a été posé dañuy jël booy former leen l'enseignement général bi ñu génnee problème yi ñëw il faut comme tu l'as dit tantôt. ñu mhm. uti ay méthodes yu bëri yoo xam ne ni. tey université yi wala nga nekk di jàng euh, tout simplement de manière euh, générale l'enseignement général nga jàng euh, gën a amoo looy def ñu teel très tôt ñu orienté la comme dans les autres pays la font ñun fii da ngay commencé de CI. a à la xamoo looy def. looy def nga dem université xamoo looy def nga def lekk wala leneen xamoo looy def nga pare jàng xamoo looy def. Mm-hmm. nga def ko tu es obligé de faire concours je pense que euh, la méthode que tu as dit tout à l'heure là mm-hmm. je pense que mën si l'état pouvait le faire c'était très bien booy bu ñu génnee équipe peut être employable ñu mën leen liggéey ah mën a am liggéey mm-hmm. il faut mu am assise éducation sax xool finalité bi ñu jox éducation au Sénégal. Mhm. sinon on va on va vers l'impasse. soxna Fall euh, Fama Ba c'est tellement important ndaxte tey di gis nga ñoom affaire de bourse yooyu sax ils vont sortir les étudiants dans cette attente de de de cette quête de de de de de euh, mhm. li nga xamante ni moom moo di ay quarante mille ay li ni mel fajul kenn soxlay kenn qui que ce soit du dëgg léegi nit ki boo jëlee euh, solution boobu nga xamante ni day jàng di liggéey il va être rentable. Mhm. il va être patriote. il va être responsable mmh. ah mmh. dina am métier mais parce que yeew di dem di liggéey di wàcc di fayeeku dafay tax ngay prévoir prévoir mooy tax ngay xalaat am kër donc mmh. secteur yu ne rek loolu rek mën na régler tout ce qui tourne autour justement des problématiques euh, vis-à-vis de la jeunesse sénégalaise c'est important il faut pas qu'on ait une jeunesse à moitié illettrée et à moitié lettrée il faut qu'on pousse tout le monde vers le haut président de la république loolu mooy suñu doléance yow gis nañ nag tànk yu rafet yi mu ci teg jéego yu rafet bu mu nekk promesse kese bu mu nekk ay naxtaan passé nañ jamono ji nga xamante ni dañ la sa yaay da lay naan demal ci biir nga jël sa euh, t-shirt bi maa ngi lay xaar ci buntu bi nga génn fekk ne moom mes dem ngay dese jooy maanaam promesse jeex na c'est vrai parce que à chaque fois on a cette impression là de président qui va promettre quelque chose mm-hmm. on va être dans l'attente après on va avoir de la politique autour hein il voilà, faut voilà pourquoi voilà pourquoi nous Salman la mise l'œuvre de la politique de jeunesse. mu mhm. ñu politiser ko. beneen bi nag loo xam ne ñun ndaw yi dañu ko wax mooy euh, parce que nous on l'a toujours demandé que mu am benn gouvernance vertueuse président wax na ko bu muy ñëw gouvernance vertueuse mais bu xale yi ñoo xam ne ñu ngi toog ñu ngi soome ñu ngi seen kër ñu ngi jàng ngi gis que ay affaire di xew ñu ngi koy gis nii mais il faut qu'il réagisse. c'est ça il faut qu'il réagisse. te du jàng loolu on peut waaw parce que yàlla a le secteur informel. Euh, bu fekkee ne rek euh, am na dëgër laa ci nga xam ne mooy. économie bi mu mën a dimbali ndaw ñi ñu mën ci am dara beneen bi bu ma boobu terminer mooy. waaw ne croyons pas que euh, financièrement on peut régler le problème des jeunes. Mm-hmm. te dëtt. Mm-hmm. éducation bi dafa important jël ndaw yoo xam ne ni yar leen yar yoo xam ne ni tey ñi xam seen problème dëkk bi ñu mën a suba mën a réagir seen dëkk. éducation dafa important surtout l'éducation de base ndaw yoo xam ne ñu ngi fii il faut ñu dugal leen si ay ñun exemple ñun on demande à tout le si mouvement éclaireur mouvement scoutique mercredi samedi leen si ñoo xam ne dañu yar civisme ñu mën a xam luy acte civisme parce que tey man la même booy monter drapeau booy le matin da ngay ruus da ngay nekk di monter drapeau à la préfecture ay mag di romb mais loolu il faut ñu ko yooyu yëpp bokk na si yoo xam ne ni day gérer dëkk je c'est pas seulement l'argent qui va faire mm-hmm. marcher le pays il faut qu'on mm-hmm. aille au-delà de cela qu'on éduque les jeunes ñun nag on est prêt mm-hmm. parfait ils sont prêts pour ça des personnes comme ça baax na ngeen tendre leen loxo wax naa ko tantôt fii am na benn invité euh, bu ñu fi indi woon mooy euh, docteur euh, Marie docteur Rose Wardini bi mu waxee ba noppi ma ne ko bu ministère de la santé amee fulla ci boppam moom moo lay woolu il faut qu'on arrête de procréer gi j'ai vu président de la République léger tout était communicationnel chez lui ouais. tout était communiqué tout était parlant am na ñu mën a non yére bi dafa oyof dëgg la mais il va vers la jeunesse et... remarque loolu il faut que mu oyof noonu on a eu mm-hmm. un président qui a maigri xaw naa koor a xaw jàpp tuuti rek ndax sa sall sa daa bëgg lekk ah, <laughs> au-delà de ça on voit une pression reconnu et reçu donné par la jeunesse donc il a compris mhm. maintenant ñoo bokk benn réew mi ñoo bokk benn jubluwaay mooy mhm. maanaam ñoo bokk benn envie ndamum Sénégal mhm. ndamum Sénégal se base sur quoi sur askanum Sénégal li muy euh, naataange bi mu nar a dund euh, ci secteur bu ne am na ku may na euh, fonction publique am na ñuy inscrire ci seen plateforme yu yàgg duñ ko def mais je pense que même ça ce n'est même pas le président mais il faut que remaniement bi muy def ci ministère am yi mu koy wàccee ci direction yi di ko wàccee di ko wàccee di ko wàccee ba toutes les fonctions de l'État bu ko defee moom dana si am vue ak traçabilité nouvelle technologie ngi fii internet a mënta ñàkk on sait aussi que seul Dieu peut être omnipotent et maîtriser tous les dossiers et que le président de la République n'est qu'un être humain mais au-delà de ça yàlla may na ko euh, bu rëy boo xamante ni boole na ko ak ñi muy àndal moom nag na am ful ak fayda ci ñooñu te ñooñu tamit nañ gore seen diggante ak moom ndaxte nag na doon mérite je pense que hier il a dit que dootu nangu kenn mhm. euh, na tardel affaire jeunes yi il a ah. dit et s'il le fait na ne mhm. fast track lay mais les jeunes l'écoutent aussi xam nga ndaw yi dañuy déglu. Mhm. l'enfant il triche de voilà ñu koy déglu. lu mu wax ni gars yi comme El Hadj ñu koy wër ñu ko nar jàppale. Mhm. Ah? Mhm. parce que boo xoolee DER bi tey les gens en parlent na dañuy wax moi j'ai fait une enquête pour dire que DER. sa ceux qui ont eu la DER n'ont pas payé. oui même le le le. le mais tous ceux qui ont la DER des gens dañ toog seen kër ñu ay ay ay politiciens ñoo leneen indi sa jox la terre. bien ah, ah effectivement ah. noonu la demee. moo tax fayu ñu on a dem mais présent. Mm-hmm. tu vois à Dalifort on te dit qu'il y a cinq mille cinq de la paire cinq mille de la paire qui ont la DER. tu te rends que yeneen ndaw yaa ngi toog am seen diplôme ñu toog bu ñu leen DER ils pouvaient faire autre chose. je pense que il faut que ñu dimbali président bi si le président a des bonnes initiatives et de très sur le président bëgg et pour cela il faut ñoom jàpp président bi mu ko jàppanewul on va encore vers l'impasse et puis les jeunes l'écoutent ils l'ont écouté moom nee na mi ngi déglu déglu na xale il les a compris mm-hmm. xam nga moom euh, kiyam bi euh, euh, ah, la ah. labbali na ko de ca kanam lay ne président nee na moom dootul nang nang nang nee na na bar <laughs> <laughs> eh, mu tudd bi mu ko fi wax na bar ça veut dire na gaaw na gaaw na mbir mi nee na dootul nangooti mbir mi nekk biiru bureau nit ñi di dugg di génn ci biir bureau yi. su léegi fay xew nag. maa leen wax sur terrain teg ci <laughs> ah, ah dëgg la bokkonte bi nii nii ci bu joxe nii ak am ñëpp ay géwél lañu pour lan bu xoyee. <laughs> mais mais Salma. <laughs> Salma dañuy wax aussi mais mais Asma. lu ma mën a wax mooy il faut aussi. dem ne ne dañoo ay cinq millions cinquante millions conseil national jeunesse c' bon. Mm-hmm. mais sur le terrain. Mm-hmm. mais boo demee CEDEPS yéen xam la jeune. Mm-hmm. na suñu temps fa la ñuy doon réunion fa la ñu jëlee information yi. mais boo fa demee tey da ngay rus. benn nit moo fay liggéey amatul dara nit amatul dara. mais yooyu il def ko. il faut am ndaw yoo xam ne fu ñuy rencontrer discuter si affaire dëkk bi seen emploi a génnee seen colère bi mais fekk xale yi xamuñu fu ñuy discuter amuñu fu ñuy waxtaanee Mm-hmm. les enfants ont été supplantés par kii euh, la jeunesse aujourd'hui am na yeneen mm-hmm. bose yoo xam